haalaan bikum pesum kanam borom ma koy fajal bopp boppam te tontu du forox olof njaaye ko wax njiital cour d'appel bu Kaolack ndangaan Ousmane Kane tontu na yaayaa Amadou Dia bi ko tuumaloon na fañ koy ger fay jaay ay dossier ci xanam gu dëppawut ak yoon Le Quotidien yéen kaay na janoog taskatu xibaar yi la xamal weddi na mboolam tuuma yuñ ngàll ca kawam moom kan Kane àttekat ba ba pare nag wax fukki dëggam ak juróom-ñeent yaayaa Dia yaaw seetal nee na fa soxor fa xiñaan ku bon la ca source a yéen kaay mu yokku ca ne sénégalais yéen laay gis ngeen xattekat bii ñuy wax yaayaa Amadou Dia respecté wut benn doomu aadama joxut cër kenn wegut kenn wax lu du dëgg nag moo ko dàq Sénégal xamul ci kersa wala mu ci ragal dara déedéet sos rek la mën ma jox leen firnde yi xam nga moom lu mu bëgg ñi xam ne ñooy ay kilifam ci wàllu atte magistrat yi ko mag ëpp ko ay domba tànk fay bëgg jël leen ñoom ñëpp téye ci ay tànkam lu leen neex def loo a faxe jëlee ko ci biir attekat yi ndax ka dof du mbokk vox populi na ko yow de kan waaye setal nga sa bopp ba set wecc waaye hee mbiru terrain suuf bu bàyyee ko ci maire bu këwoon fa mel na xam na ñuy ruumandaat ne nangu nañ ne lu xam la si du quotidien na ko li am dëgg-dëgg kay mooy njiital cour d'appel bu Kaolack ndangaan tontu na a attaqué na sulli na ay mbóot jëmale ko ci yaaya ja tribune yéen a na ëtt attekaay baa ngay kalaate nag ndax sulli wante mbóot ya tuuma lante ya ñàkkante ba diggante ay attekat moo fa xam enquête yéen a kaay ne yi fi mu toll nii kay dara doxut fa carte ga jaxasoo seeni kilif fa nag war nañ ko lijjanti ndax lii kat fa ñaaw de les éco yéen kaay na ko weesu na ñaaw bu ñu waxante dëgg lii fay gàccel suñu ëtt attekaay yi fay tax sénégalais yi askan wi dootuñu wek respecté magistrat yi leen di atte ayaw ah, seetal benn attekat ci yéen kaay bi nee na man fanweeri at ma nekk attekat waaye lii am nii jamono ji mësuma koo gis te mësuma xalaat na sax dana am ay magistrat tuuma lante sulli wante ay mbóot ñaaw na trop waay nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Cerno Alassane Sall bi fi bind ab livre génne ay tuuma ci doxalin bu bon bu ñaaw bu njiit réew Macky def ak i jëwrinam ba ci rakkam Aliou Sall ci pétrole Sénégal beeg totaal ak mbir yu garaaw yooyu mu fi wax eh farandoori njiit réew Macky Sall ya tey tontu nañ ko moom Thierno Alassane Sall tontu yu saf sàpp réglé nañ ko delloo ko palaasam wax ko boppam yow seetal Diouf Sarr nee na kii fa soxor xiñaam te lii mu def te xibaar yi mu bind day tax livre am bi kenn du ko wekk Abdou Mbow ne kii il est wax du tous du dara moo tax li mu bind man faalewu ma ko sax Moussa ko gère ne kii kay fa gàccal suñu réew mi les ko yéen a kaay ñu ko xamal critique yéen a kaay ne Thierno Alassane Sall kay fa salfaaña wiyole charte homme d'état maanaam nitu nguur waroo di seen naka pierre foo toll di génne ay mbóot déedéet bu doon loolu réew mi tas di bàmmeelu biir képp kuñ takkal ndomba tànk ci am réew soo fa bàyyee ko fa ko war a xam lii yéen a kaay ne cadre APR ya tontu nañu attaqué Thierno Alassane Sall ne nañ du dara matut kilifa fa soxor hiñaam a kaay ne waaye man daal li ma xam mooy na sénégalais yi xamee fi ki jiite réew mi boppam bu ëlbatiku soppali ko ab buur te lim doon rey sénégalais yi naan yorin wu sell ak ah ndékkate yoo sell gi moom ci kaw rek ak làmmiñ yi la yem ak ah, xoolal li wax ci pétrole beeg total la mu wax moom vox populi mooy Ibrahima Boubacar Keïta njiit réew bu Mali ba woon takk der ya foqarti nguur ga ñu ngi ruumandaat ne Sénégal lañ koy andi l'observateur na ko ah loolu bu amee warta bett kenn di Sénégal gii président buñ dàqee la sa réew nangu nguur ga wala nga am problème ñaaral Sénégal ngay na ci misaal Amadou Toumani Touré boobu bu Mali Hussein Abré Adama Barrow bu ñëwut Sénégal tamit Émirats arabes unis fa la jëm su du quotidien ne fitna ja am Mali nañ ko gaaw régler ndax lu ko mooy réew yi wër Mali terroriste ak ñuy def yu bon yi mën na ñoo song de ah su boobaa du baax li baaxu dëgg nag ci Sénégal ak Maleek réew yi ñu wër mooy am président boo xam ne fay def ñaari mandat ba pare naan troisième mandat laa soxla xanaa xamule na loolu coup d'état la waxuma ko nag njiit réew bu Guinée Bissau Umaro Sissoko Embaló moo ko wax te président a def vingt heures a kaay nee na leen bàyyi leen loolu waay ma bàyyi loolu dem ci le soleil yéen kaay tey di ñu xamal diwaanu Casamance xeet ya fa nekk nañ fonke wàllu cosaan rawatina li ñuy wax kankuran ak kumpu ak SMA yi diggante soosa ya joolaa ya ak yeneen xeet ya ku nekk ngi xëccoo naan bii moom sama cosaan la turbine yéen a kaay di ñu xamal na yàlla ji fa taw démb taw bu mag bay wala ngaan ndakaaru njaay askan wa nekkati jafe-jafe ba ci élèves yi nga xam ñoo doon def entrée en sixième mi lañ toog di tontu ay laaj mu ngoog nag vox populi di am na juróom-ñeenti oto yu rafet Europe ñi ngi ko jàppee fii ci port bu Dakar tàggat yaram Séville jël na coupe ba pot ba yanu na Europa League ba ginnaaw bu mbuqee Inter de Milan ñetti bal si ñaar kon Séville jëlati ko la ñuy wax stade yéen a kaay ñu ko xamal ba tey yéen a bi di ñu xamal ne final bu mag bi ñëpp di xaar nag mooy Paris Bayern suba ci dimanche ji sunu lamb yéen a kaay dalal Gaston Mbengue ma ngay wax fukki dëggam ak ñaar Gris Bordeaux nee na ko xëy Gris bu ma foxantoo avance naa la dix millions ngir nga bëreel ma nga taxaw di ma la maa bañ xam nga ma lay xamal su jox ma ma jël sa morom te nga delloo ma sama fukki millions yi ma la avance woon jàmm na ñooy ka amul jàmm kay mooy xale bu jigéen bu am fukki at ñett parental fañ koo sàcc yóbbu ko ci benn kër tëj ko fa ba pare nag di oo ay xale yu góor naan leen kaay leen ngeen ànd ak moom ba pare di ñu fay ñun ñu koy lekk ay libération moo ñu ko xamal yëf yaa nga amee ca yoof ndakaaru ñaar ña ko sàccoon di ko jaayloo boppam maanaam di commerce ci xale bu jigéen bi ñoom ñaar ña teg nañ leen loxo léegi nag ne ñoo doon dem di joxe xaalis di ànd ak xale boobu waa ma ne yéen da gaaw ba procureur jàpp leen xalalam ngeen laal mineur fañ leen a war a tëj kaso giir ak dund laaj bi nag mooy ña ko sàccoon di ko def loolu bon di ca am xaalis ak client ya fa doon dem ana kan moo ci gën a bon